salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ Nayel. waaw. ñu ngi lay ziar bu wér. waaw ñu ngi delloo ziar bu baax a baax a baax ñang balo di am mbégte rek tey ci ànd gi nga ànd ak ñun ci sunu teraanga. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di la dalal di la bàyyi rek nga nuyu mbokk yi nga xamante ni jamono ji nu toll. ñi ngi nuy seetaan jaaree ko ci li nga xamante ni moo di internet waaye ñu ànd ak ñi nga xamante ni ñoo di xombal point net di site internet boo xamante ni bu bees la eh, nekk fii ci dëkk bi waaye nekk biir Sénégal waaye nekk ci biir le monde entier eh, rek mu mel ni fi mu ne àdduna wërngal képp ñu ngi lay déglu di la seetaan sëriñ ñu bàyyi la rek nga yegg si daal di nuyoo ci kër waaw maa ngi leen di ziar yéen di leen nuyu nuyu bi nga xamante ni moo gën a màgg ci jullit mm-hmm. asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu mm-hmm. gannaaw nag buñ sante yàlla judd ci sangu-sang yi Seydina Mohamed mm-hmm. ñu ngi sunu wasila gannaaw buñ sante sunu ñaari waajur sëriñ Galas mu Cheikh Abdul Karim Mbacké ñu koy ziar noonu la ñuy def na di ziar sunu xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wér. allahumma amin. di tamit euh, sunu xalifa général de Tidiane muy sëriñ seex Tidiane ñu koy ñaanal tamit yàlla sa borom sëriñ Mbaye Sy Mansour boobu. ñu koy ñaanal bu baax yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. di leen ziar yow tamit ci dalal bi nga ñu dalal tey di ko rafetlu di ñaan ni. Mm-hmm. yal na yàlla leen. ba ngeen yëg ko ndax lii dafa am solo ci fi nga xamante ni fi lan dëkk ak fi nga xamante ni tey jii fi lan nekk ngay liggéey liggéey bu rafet moo tax boo nu dalelee dinaan sawar tamit ànd ak yow ci liggéey bi ñu ngi ziar bépp xomb loi euh, di ziar képp ko xamante ni yaa ngi ci diaspora bi ak fépp foo nekk rek te dëkk xombal ñu lay ziar ndax ñun xomb rek lan am jërëjëf ay ca sëriñ ñu ngi lay fay ñu nit bu baax rek di la dalal bu wér ay te ñu bàyyi la rek Serigne nga wax nu kat mooy Serigne Nayel ak eh, eh, ban jamono nga tàmbali li nga xamante ni moo di ñaw eh, ba yàlla dogal tey nga tàbbi nekk jiite ñi nga xamante ni ñooy téer yu xombal waaw aja aju yi laaj nga am solo ndax bu ñu laajee kan mooy Serigne Nayel Serigne Nayel mooy doomi Mouhamadou Diop Nayel ak Soxna Waré Faye dëkk mhm. xombol magi xombal yaro fi jang fi metti ba yalla hmm. dogal tay ji ñu nek fi ci sunu njambar xamna nyubah ni sax njambar manam ñu bax ñi la rek motax ñu nek xombal ba yalla dogal ñu nek fi jang metti en 2003 ba yalla dogal tamit ñu am ci lim ci am ba suñ borom dogal tay ñu ñew xombal nek fi ba jité fi ab association hmm. ah, ñu di sant nak yalla bu baax ci palmarès bi nga xamanteni jaar fi te mm-hmm. amuñ ci lenn loo xamante ni ci suñu xelam bopp lu ñaaw la lu ñuy nettalil loolu mm-hmm. moom dañ ciy dellu sant yàlla bu wéré wéré wéré wéré jërëjëf ñang mm-hmm. ay ca sëriñ foofu rek la ñuy daal di tabbi ñu bëgg a xam eh, bi yàlla dogalee ngay nekk président association des tailleurs ndax loo loo xam ni la da ngeen koo voté ci seen biir wala da nga ñëw rek eh, xamal leen ni la yow daal da nga leen a bëgg a jiite nan la tëddee ba nga nekk eh, li nga xamante ni moo di président waaw loolu lu am solo la ndax bi ma nekkee xombol mm. xam nga li ma faral di wax ñëpp rek man moom damaa nekk nit koo xamante ni euh, développement dafa maa ñor mm-hmm. nekk xombol di organiser ben défilé de mode mm-hmm. woowoon ay tailleur yoo xam ne dama leen dajale woon ne leen kat dama bëgg léegi ñu xool sunu liggéey nan lañ ko mën a pour mu jëm ci kanam ñu jëm ci kanam. Mhm. yàlla dogal ma dajale ñooñu ba commencé woon ut samay carte membre. Mhm. ni léegi dama koy jaay képp koo xamante ni bëgg na présenté wu ci défilé de mode ma bëgg a def xombal. ngeen ñëw ñu àndandoo ñu liggéey ngir suñu liggéey xombal ñu xam ni waa xombal maanaam mhm. desuñu gannaaw ci liggéey tëyër daal. ci loolu diggante boobu ñu nekk ci ci la commencé tëyër yi ni léegi danoo bëgg dajale fekk booba am na ñoo xam ne danoon doon def ay marché Euh, tailleur contre ay menuisier yooyu. Mhm. ci loolu nag relation boobu gars yi am ci lañ commencé ni pourquoi pas xombal mun ta am moom ñu dajaloo nekk benn mhm. ñun ñi nga xam ay tànk lan tey yor métier mi. Mhm. bi ñu ñëwee ko man tey ma ànd ci ak ñoom ci maanaam dajale nekk benn man ba jour bi may demee ci euh, vote yi. sentir wu ma ni man ma war naa mën naa jiite association bi. kon daal seen xalaat ñoom kon daal mën na jàpp yow yaa njëkk a nekk président des tailleurs association des xom euh, tailleurs xomal yow yaa njëkk a nekk président bi non non du ma wax loolu ndax am na ñu nekkoon ay président tailleur fii ah. waaye danoo dem ba mu am ay waa mu am ay rëkk-rëkk yoo xamante ni xaw nanoo bàyyi seen loxo mm-hmm. waaw ku mel ni maa ngi koy ziar au passage muy tonton Mbay Ndaw moom moo nekkoon président mm-hmm. voilà Mm-hmm. bi yàlla dogalee na ñu toog ba xale yi nga xamante ni ay jeune talent lan mm-hmm. ñoom ñoo ni dañoo bëgg a jël relé bi téye téyeer yi ñi nga xamante ni tey jii euh, ay xale lan te man seen métier lool ñu ne mm-hmm. léegi dañuy loolu après na ci diggante boobu nag ci lan commencé di dugg par atelier di waxtaan ni danoo am réunion boo xam ne danoo bëggoon a nekk benn loolu nag lan tàmbalee ba convoqué ma man ma ñëw toog gars yi léegi daal di waxtaan ci seen biir ni léegi danoo bëgg a def xanaa ab bureau boo xamante ni dañ koy fal pour ñu nekk ay tailleurs yoo xamante ni dañuy am njiit am bureau am maanaam lépp loo xamante ni lépp activité booy def rek xam ni tailleur dañ ci feeñ seen feeñal seen bopp. Mm-hmm. léegi ñu ba ci àgg ñu ne léegi euh, président. Mm-hmm. bi ne président man yëkkatiwuma sama loxo yàlla moom ma tiim. Mm-hmm. am koo xamante ni moom daana gis may dox ci maanaam yu mel ni ay défilé de mode sonn ci loolu ma yow nayal mm-hmm. nayal sëriñ doo yëkkat sa loxo du tege dama mm-hmm. ma kàjj ak tànkam ma eh, ma jàppale mm-hmm. ma daal yëkkat sama loxo aw ma kenn nag koo xamante ni nekk na deuxième ku ñu doon fa teg yooyu damaa yëkkat sama loxo rek oh. ayca mu mel ni rek eh, invité bi dana ko perdre mais xam naa dina duggaat ba defee rek ñu daal di mën a yeggale eh, waxtaan bi Omar Gadiaga ah ga Gadiaga ñu ngi lay sargal bu wér-wér nee na borom baax la <laughs> ayca ayca wax sëriñ rek eh, mu bu ko defee ñu mën a yeggale li nga xamante ni moo di waxtaan bi noonu rek lañuy daal di jaare daal di koy sargal bu baax a baax daal di koy ziar ah nee naa la heure bu ñu tàmbalee rek li ñuy war a def mooy njëkk koo nuyu mu sëriñ Modou Kéemaan mu sëriñ Abdou Borom dër bi ñi kaa ziar bu wér a wér ñu ngi diwaanu Touba Mbacké eh, dër ba ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar njaboot bi soxna Mati ñi kaa ziar eh, bu wér di ziar ki nga xamante ni eh, moo di